je suis le professeur Madouki Magat Diop euh, je suis médecin conseiller de la société euh, sénégalaise des phosphates de Thiès et en même temps responsable du bureau des études et de service à la société de l'université Iba Der de Thiès. Ce matin, en vérité, c'est la société sénégalaise de phosphates de Thiès qui est la vedette. C'est euh, monsieur euh, Jean-Brice Saint-Martin, le directeur de la société, qui a eu l'initiative d'abord de se faire vacciner à titre d'exemple Et, et, cet acte, cet acte a été salutaire. Il a, et, euh, ça permis à tout le monde de montrer euh, euh, l'innocuité des vaccins. Et en même temps, la société a eu l'initiative de faire bénéficier et à son personnel et aux populations environnantes à ces usines de la vaccination. Et ça en intelligence avec la région médicale, notamment avec le district sanitaire de poute actuellement euh, la vague si on peut dire elle est dans le creux mais les choses ne sont pas finies on ne sait pas quelle allure ça va prendre pour euh, rappel on a pensé à un moment que c'était fini et puis tout de suite il y a eu une deuxième vague qui a été très très euh, fulgurante alors là c'est pour montrer que les vaccins sont euh, efficaces et en même temps aussi respecter les mesures barrières et euh, ça entre dans le cadre aussi de leur politique Euh, RSE, de la politique RSE de la société. Actuellement, même si le Sénégal connaît une période d'accalmie, en Inde, les choses ne se passent pas comme ça. Or, on sait que le monde est un village planétaire. Tant que ce n'est pas fini de partout dans le monde, il faut rester sur ses gardes. Et ce qu'a fait la société, et par la société son directeur, M. Jean-Brice Saint-Martin, euh, c'est euh, de c'est de montrer qu'il faut encore respecter les mesures barrières pour euh, justement ne pas baisser la garde. Les gens ne respectent plus les mesures barrières et euh, il faut, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'une troisième vague n'arrive pas. Mais pour en revenir à ce que la société a fait, euh, on, souhait, on souhaite que ça serve d'exemple à d'autres chefs d'entreprise pour, que, pour montrer pour, euh, aux populations, pour faciliter la vaccination aux populations. Et que cela fasse euh, tâche d'huile. tey euh, ci dëgg-dëgg waa société sénégalaise def des phosphates de Thiès ñoom ñoo def benn acte bu salutaire maa ngi toog fii ak euh, monsieur Isaac Ndiaye moom mooy infirmier wu euh, usine bi léegi seen directeur bi ak personnel bi ñoom ñëpp dañoo nangu ñàkku d'abord loolu lu baax la ba pare dimbali waale euh, seen dëkkaale yi village yi nga xam ne dafa war usine bi mais ci loolu dañ ko def pour appuyer état du Sénégal notamment par la région médicale et le médecin chef du district de Pout moom mooy docteur Badiane moom moo leen jàppale indi fi vaccin yi et dañoo bëgg tamit li ñu def noonu mu servir d'exemple à yeneen chef d'entreprise yi comme ça ñoom tamit ñu dimbali population yi leen wër dimbali seeni agent pour ñu ñàkku parce que euh, feebar bi kenn xamagul ndax jeex na tàkk. ñu fi nekk nii personnel bi ci population bi la ñu bokk mais tamit euh, entreprise dañu am benn politique bu tudd politique RSE responsabilité euh, sociétale des entreprises ci loolu la ñu bëgg a dimbali waale ñi ñu dëkk seen dëkkaale. ñi env ñuy nekk seen alentour ñi leen ñi leen wër pour ñu ñàkku et puis tamit wane nit ñi tamit nii malgré le fait que ñu ngi euh, euh, masque ñu bëri léegi dañoo bàyyi masque yi parce que feebar dafa wàññeeku mais kenn mënagul wax ndax jeex na takk ñàkk bi ñàkk bi daal moom mooy solution définitive bi pour euh, yàlla dimbali ñu ci pandémie bi parce que bu ñu gisee ni Sénégal wàññeeku na mais day am ay dëkk yoo xam ni ci monde bi. ñu ngi fay gis ay chiffres yu bëri ba léegi kon kenn mënagul wax ndax euh, feebar bi jeex na ñàkk bi rek moo ñu mën a dimbali. ni mu wàccee parce que seetlu nañ ni première vague bi demoon nañ ba mu foog ni jeex na affaire ñëwaat comme kenn xamul euh, nan lay demee mieux vaut ñu ñàkku ba pare continuer di respecter les mesures barrières. Papa Blondin Diouf je suis directeur des ressources humaines. Euh, de la Société sénégalaise des phosphates de Thiès qui est une filiale du groupe Tolsa. SSPT Société sénégalaise des phosphates de Thiès ci groupe Tolsa Et donc, groupe, groupe Tolsa moo définir une politique, un cadre global de lutte contre la Covid. Et donc, euh, ñun tey jii buñ ci demee ci loolu dañuy xeex euh, maanaam ci à côté de l'État d'accord fekk ci État bi ci li euh, maanaam ci combat bu nga xam ne sumboon na ko ba pare. donc def nañu ay actions avant lii def nañu maye nañu ay ay kits ay sanitaires ay wàllu alcogel ah ay kits alimentaire aussi. Euh, pour dimbali leen ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu jànkonte du fait de de du propagation de la Covid alors euh, bu loolu weesoo tey ñu def euh, initiative bu mel nii encore une fois pour créer leen opportunité may leen ay possibilité pour ñi nga xam ne dëkk nañ ci ay village yu enclavé mënuñu am accès à ces soins ñu permettre leen tey ji ñu mën a vacciner wu. village yi mooy doon village yi nga xam ne moo nekk fii àllukañ ay village yu pël yi nekk fii. jàpp ba côté ba région ba ba commune de Pout ak Kër Mousso d' accord jusqu'à vers euh, yoonu yoonu Mbour bi donc am na ay yu bëri yu nekk foofu ba Lam-Lam aussi am na village villages yu bëri yoo xam ne accès accès nañ donc vaccination bi fii la ci site yi mais euh, nañ ko étendre également ci yeneen site yi comme fu mel ni Lam-Lam par exemple. feebar bi fi mu toll nii euh, day nekk loo xam ne lu jaadu la day nekk lu jaadu parce que tey boo xoolee. Euh, comme ni ma ko waxee sànq ci ci ci nasaraan dañuy bëgg euh, may leen possibilité ñi nga xam ne mënuñu ko maintenant nag possibilité boobu dafa am leneen lu mu ànd lu mu làmboo mooy campagne de vaccination donc vraiment am na ñu def nañu benn campagne bu am solo de communication à euh, ay politique yi nga xam ni moom lañu définir dem a côté de ces population waxtaan ak ñoom Euh, fii aussi nga xam ne en interne mooy suñu wetu personnel on a déployé une stratégie de communication pour conscientiser encore pour toucher le maximum euh, donc loolu def nañ ko bi ñu ko defee tey le résultat mooy ñi inscrire euh, liste bi ma jot bi ma jot a présenté tey def na lu tolloog ci 192 personnes réparties entre deux sites donc loolu mu nekk loo xam ne lu am solo la

qui nous ont aidés de près ou projet. Euh, une campagne de vaccination contre le Covid-19 qui est destinée à le personnel de la SSPT, mais aussi à tous les villages, à tous les villages environnants. Euh, par rapport au Covid-19, nous commençons d'abord euh, à être des que l'État du Sénégal fait un travail remarquable depuis l'arrivée du Covid Sénégal. et nous sommes euh, des facilitateurs dans ce domaine. La vaccination au sein des entreprises est une opportunité pour les travailleurs, mais à la SSPT, Société sénégalaise des phosphates de caisse, puisque nous avons la RSE qui est très ancrée dans notre vie d'entreprise, nous avons aussi choisi de toucher toute la population environnante au niveau de Thiès et euh, voilà, dans nos sites principalement et aussi dans les communes. qui nous sont proches. L'année passée, au niveau de SSPT, nous avions fait des dons de kits alimentaires et des produits antiseptiques, des matériels au niveau des hôpitaux, des, des, des écoles aussi qui sont à Thiès et euh, au niveau de notre personnel pour justement contribuer à faciliter les choses pendant cette période. Diadefol, sur nos directions générales, SSPT, ñun nag euh, dañu gis ni état bi corona bi bi mu ñëwee ba léegi Sénégal moo ngi def liggéey bu mucc ayib ñun nag dañu nekk comme ñuy euh, dañu nekk ay ndaw rek yoo xam ne dañu ne dañuy apporter suñu pierre à l'édifice maanaam dañuy jàppale état bi def benn campagne de vaccination boo xam ne yamalewuñ ko si ñuy liggéey ak ñun rek wante dañ ko yaatal tamit si ñëpp ñoo xam ne dañ nekk si village yi environnant yi ay village yu Lam-Lam ak euh, Alukaañ ak yeneen village yu jege Thiès waaw léegi nag daaw ak corona bi defoon nañu ay euh, ay demoon nañu pour joxe ay dund ak tamit ay matériel si hôpitaux yi ak si école yi pour wane ni ñun tamit yàgg nañu si affaire sociale mais corona bi bi mu ñëwee daal ci lañ ne dañ ciy jàpp tamit rek moom lañ doon def SSPT nag dafa ñëw rek pour dimbali état bi pour wane ni ñun tamit Sénégal la ñu bokk. te dañuy def lu ñu mun rek pour feebar fii gaa fa jóge moo tax tey dañ ne woon dañuy continuer puisque vaccination ñëw na Sénégal ñu ne woon tamit dañuy ñàkk suñu personnel ak tamit population bu ñu wër yëpp. Bonjour à tous, euh, je me nomme Christelle Moaka, je suis euh, la responsable QHSE à la SSPT. C'est vraiment un plaisir au sein de notre entreprise et nous profitons aussi de l'occasion pour remercier la direction de la SSPT, mais aussi le groupe Tolsa et région médicale de Thiès principalement celle Pout de Tiwawan qui nous accompagnent dans cette euh, démarche Et depuis que le coronavirus a débuté au Sénégal, nous n'avons cessé de mener des actions, non seulement au profit de la population, mais aussi au profit du personnel de la SSPT pour accompagner l'État dans cette démarche euh, sécuritaire, sanitaire, mais aussi pour pouvoir respecter toutes les recommandations qui ont été mises en place par le ministère de la Santé et de l'action sociale. Cette campagne que nous menons aujourd'hui n'est qu'une euh, continuité de toutes les actions précédentes que nous avons menées au sein de la SSPT pour pouvoir lutter contre le coronavirus. Comme notre responsable RSE, l'a si bien dit tout à l'heure, nous avons mené des actions dans le but d'aider le personnel mais aussi la communauté rurale de Ponienne, de Lamlam, de Koutz de Warang et de Bodjen qui ont bénéficié des années précédentes non seulement des denrées alimentaires, des produits sanitaires pour pouvoir lutter contre le coronavirus. Et c'est une opportunité pour nous aujourd'hui de recevoir non seulement la presse, qui, dans leur collaboration pour pouvoir médiatiser cet événement au sein de la SSPT, mais aussi remercier tous les acteurs dans la campagne de vaccination que nous menons aujourd'hui. maa ngi fii si yee lam-lam bi fii kontaan si ñoom rek kontaan si ñoom parce que c'était pas facile tamit c'était pas facile nga dem ci ci ñoom di waxtaan ak ñoom il faut nga dem waxtaan ak ñoom pour nga convaincre leen ñu ñoom mais des fois nga dem waxtaan ak nit mu ne la noo dama ragal lii ak la mais nga rassuré ko boo ñëwee tuuti le lendemain ñoom ñu ñëw ne la du ñu bëgg a inscrire waaw metti woon metti na nag trop trop trop nag mais nag ah sant yàlla sant yàlla ah, waaw wuy si nañu bu baax a baax a baax wuy sa man moom vraiment je m'attendais pas à ça si population bi mais sant yàlla sant yàlla fii am na lam-lam séeréer lam-lam fii mooy lam-lam sité njaasaan séeréer mhm. yaa njaasaan euh, baaliga mais sant yàlla daal sant yàlla. dinañ ñu aar si feebar bi dinañ affaire parce que nag euh, nit ñi tamit neexul tamit de mais euh, il faut nga dem wax parce que yàq yi ñoo tax ndax ku nekk tey bu kii ñëwee ne ñàkk yi lii wóorul lii wóorul information boobu di jàll tamit yow tamit loolu dafay métti si yow yow mi nga xamante ni da nga dem pour dem di waxtaan ak ak ñoom mais nag ah am na ci ñoo xamante ni tamit dëgëruñu bopp. mais am na ñoo xamante ni nag vraiment dañu dëgër bopp te tamit ñuy sant suñu mbokk si entrée bi fii mbokk suñu mbokk pël yi parce que tamit dem naa foofu waxtaan ak ñoom ñu bëri tamit inscrire nañu suñu mbokk yi tamit séeréer yi dëkk fii Njaasaan euh, nja kii lam-lam séeréer Njaasaan séeréer euh, Baaliga ñu bëri dem nañu waxtaan ak ñoom pat def nañu seen i si ñëw indi mais macha allah daal macha allah ñuy sant yàlla nag bu baax di ñaan daal ah yàlla nañu yàlla dool si sutura ñu àddale ko si jàmm ak salaam non non pas du tout pas du tout mais nag ah am na ñoo xam ne tamit kii leen lu may wax rek toujours bu ne dama leen di wax ne lii forcé wuñ si kenn soo demee waxtaan ak ay nit soo waxtaanee ñoom ba pare da ngay naan leen yow yaay xool li dal sa xel nga ñëw parce que forcé wuñu kenn. ah mais nag ah alhamdulilah daal nit ñi ñëw nañ wuyu si ñu daal ñuy sant yàlla bu baax. c'est madame Fall Fatou Sall infirmier chef de poste Chérif Lo. ñu ngi ko commencé ci jàmm ak salaam ah nit ñaa ngi ñëw de pour le moment moom nit ñaa ngi ñëw ndànk-ndànk mhm. ak compte août dañuy ñëwee sax. commencé nañ ko depuis lors nag mais fi mu ne nii dañu am ay jafe-jafe parce que nit ñi moom ak information yi circuler dans les réseaux sociaux. dañu am problème sax pour nit ñi ñëw ci vaccination bi. ah ñu ngi continuer suñ campagne de sensibilisation yi. Mhm. di ñaaxaat nit ñi rek ñu gën a kii. Mhm. ñu ñëw vacciné wu comme niñ ko waxee ndax feebar baa ngi fi ba léegi. partenariat bi dañu ngi ci ñu ngi ci ba léegi bokk na ci li tax sax vaccination bii am fii tey au niveau du dispensaire.